dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyee xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien ak le témoin ak la turbine mu xëy di ñu xamal lan ñu askanu Sénégal ñi nekk bitim réew ñoom keroog bi nga xam ne dégg nañ Abdoulaye Diouf Sarr wax ne képp koo xam ne faatooti nga bitim réew maanaam fa lu ñu lay denc duñu la indi ci réew mi ñoom ñëpp ñu boolee am lu leen metti taxoon ñu kalaame nguurug Sénégal ca cour suprême fa mbaxana doonee benn waaye nag niki démb la ci cour suprême yiy yàbbi journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu moodu moodi du ñu amati lu leen ndax la xam ne moom la ñu bëggoon Senghor cour daf ko daal di gàntal ki nga xam ne bokk na si ñi leen doon layal di maître Assane Dioma Ndiaye ni ki démbu nay wax ay dëggam nee na ñi nga xam ne ñooy faatoo ci réew mi te covid 19 ray leen anam ba nga xamante ni moom lañ siy jël ay matukaay ba denc leen ba jàmm na ñooy loolee mënoon nañu koo defal sénégalais yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ca bitim réew yéen a kaay gii de la turbine nee na mbir mi leer na léegi nag enterrement forcé képp koo xamante ni faatu nga bitim réew te covid 19 bi ray la état bu sénégal nee na fa ñu lay denc yéen a kaay gii de libération mu ñu am ba des dal mooy niwaakin bi maanaam yeex nañu koo jël di jëraawul nag maanaam jamono ji askan wi war nañu ko sant ndax lu toll si ñeenti fan lu tollu ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay doomu aadama ci réew mi maanaam daal di nañuy wér ba ñibbi seeni kër journal bi nee na démb lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay nit wér nañu maanaam ñibbi nañu yéenekaay gi mu ñu xamal ñu en tout cas chloroquine bi maanaam am na solo yéenekaay gi a la témoin xëy nag dikkal ñu ci maître Abdoulaye Wade ni nga xam ne moom lay dundee ka woppi coronavirus ji ak confinement bi journal bi nee na Abdoulaye Wade maanaam ma ngay bind Abdoulaye wadd ma ngay liir Abdoulaye wadd ma ngay julli waaye nag Abdoulaye Wade ma nga ca këram daal di jàpp morso njaamuram biir kër ga nag ki nga xam ne moo koy toggal ma nga fa ab jardinier ma nga fa ab chauffeur ma nga fa ak ku koy doxal ay yónneen waaye nag ci biir kër gi maanaam foo xool di nga fa gis ay gants gis fa ay masque gis fa ay gel hydroalcoolique maak lu dalum xelam Abdoulaye wadd maanaam dafay guddee tëdd ay deux heures du matin la Abdoulaye Wade tëdd waaye nag dafay teel a yeew Abdoulaye Wade moo amuti nelaw juróomi waxtu lay yeew yeewu maanaam cinq heures du matin yéen a kaay ko di Sud Quotidien mu ñu xamal naa ñun njiitu mi di président Macky Sall moom nag dafa santaane woon bépp xale boo xamante ni ma ngi ci mbedd mi maanaam ñu daal di ko fay moom njiitu mi di Macky Sall conseil des ministres bi nga xam ne moom la ñu génn dafa mer ba futu ndax nag loolee nga xamante ni ab projet la woon mu santaane woon ko gis na ne ba léegi ni daal mbir ma dafa daal di lajjee ndax xale yi ñoo ngi ci mbedd mi di parang-parang yi di yéen a kaay na moo taxin Macky Sall dóor na ci taabal jee yéen a kaay gi da la mu ne moo lu toll si ñaari junni yu fegg fukk ak juróoma ci ay xale jëlee nañ leen ci mbedd mi yéen a gii di réew mi quotidien moom tim xëy di ko dëggal waaye tamit daal nay dëggal ne état bu Sénégal projet bi nga xamante ni amoon na ko ngir jële xale yi ci mbedd mi nguur gi ñoom seen bopp nangu nañ d'accord nañ ne dañu see lajjee ndax lu toll si juróom fukk ci ay xale amee nañu woppi coronavirus ji yéen gi mu ñu xamal ñu taalibe yi ñoo nga ca ak i parental yéen gi di source mu ñu xamal ñu lu jëm ci covid 19 beek xaalis bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon dajale dafa am lu toll ci 77 milliards milliards yoo xamante ni war nañu koo jébbal ñi nga xamante ni ñoo am ay jafe-jafe ci Covid 19 bi tey yëngu ci wàllum secteur touristique ak aérien journal bi nee na Alioune Sarr na mu koy séddale maanaam anam ba dara jaaru ci yoon ndax séddale bukki la bii bukki bii njuur bii sàmba bii sàmba xëri journal bi nee na loole war nañu koo lijjanti ndax nag am na ca loo xamante ni leerul ci bopp askan wi yéen kaay gii di Dakar Times mu ñu xamal nañu Alioune Sarr mi ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi ci jaww ji du loolu rek la war a lijjanti am na leneen loo xamante ni war na koo lijjanti Nguy Ndiaye mi ñu dénk ministère de l'intérieur moom ti war naa bokk si ñuy lijjanti ndax li nga xam ne moo jaaxal askanu senegal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2020 dañoo tëjoon aéroport yi waaye gis nañ boobee ba léegi nii Air France ma ngi ñëw Sénégal ma ngi dellu France maanaam ma ngi jaaba jonge ma ngi dem ma ngi dikk te loole nag jalgati li nga xam ne moom lañ tegoon ci réew mi la yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Bara Gaye bu kilin owil ak Adja Diallo ñi nga xam ne maanaam dañoo salfaañe woon urgence bi ñu jël leen daal leen di a may ab liberté provisoire yéen a kaay nee na nag lii nag dëgg-dëgg mooy kumba am nday ak kumba mu amul nday ñii bàyyi nañ leen ñu ñibbi moo ne day am nay ndaw ñu nekk ca diwaanu Caaroy ñooñu dañu leen tuumaal na respecté wuñu état bi ñu jël leen yóbbu leen sa kasu am na taximaan boo xamante ni moom tim dañ koo wax na ko respecté woo état bi ñu jël ko yóbbu ko sa kasu ba lan moo tax ñoom baare gay kilin owi lekk ñoom aja jàlloo xarañ loo ñoom ñu bàyyi ñu ñibbi seen kër journal bi di grand place moo xii di ko laaj ndax neena na mbir mi yéen a kaay gi di estat mu ñu xamal naa ñu maître Babacar Ndiaye mi nga xamante ni moo jiite fédération sénégalaise bu basket moom ak Baba Tandia seen diggante neexutoon dafa amoon ñol-ñol ba ñu xuloo waaye nag jamono ji Matar Ba ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram dox na seen diggante ñaan leen ci weeru koor gi ba ñoom ñaar ñu joxonte loxo baalonte ak